ما سلامه بأسوار جسمي حاضر jamaalan قديما على كريم السجايا واسع الجود والثواب لغيب الكريم قد اجاب مقولا فهب على ذلك مصطفى وعلى عطاء لا يخافون وأتي حقوقنا وأتي الدينا وهب لنا ذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة وجاز عنا كل من قد أحسنها إلينا من ربي جزاء أحسنا بالمصطفى الشفيع يوم المحشر خير الورى من قذف به بالكوثر عليه صلى ربنا وسلم وفاض بالخير لنا وعلمنا بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ورضي الله عن صاحب القدم والكتم أبي العباس مولانا سيدي أحمد التجاني وعن وارثه وصاحب فيضته أبي إسحاق مولانا شيخ الإسلام الحاج إبراهيم نياس mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fii ci barab bi ci bés bu màgg bi nga xam ne ñu ngi ko jagleel góor yàlla Ahmed Thiam nga xam ne ku nekk xam na ci liggéey yoo xam ne liggéeyal na ko sëriñam di Mawlana Cheikhul Islam Alhaji Ibrahim Niass gannaaw ko jàngee ci loxo maam Alhaji Abdoulaye Niass ñëw ci loxo Mawlana Cheikh Ibrahim Niass mu dégg ko li nga xam ne moo di xam-xam jàngal ay doomam ak ay doomi taalibe mu gis ne xam-xam bi nga xam ne moom la jële woon ci maam Alaaji Abdoulaye Niass jaatu na mu delloo ko ci njaboot ci Mawlana Cheikhul Islam Alhaaj Ibrahima Niass haadi bidaatukum uddat ilaykum kon ci loolu ci la def dundam bi yëpp bëggul dara soxlawu dara sàkku dara lu may ngëmaane Mawlana Cheikhul Islam Alhaaj Ibrahima Niass ñu ngi sant yàlla ci bés bu màgg bi ay taalibeem ay njabootam fàttaliku ay jëfam ak ay liggéeyam ngir mën cee roy ndax de zikri saalihiina tutanazzalu rahmat ñu ngi tatagal al imam imam al xadra Seydi Cheikh Ahmed Tijani nga xam ne moom it ku nekk xam na ko ci liggéeyam ci xam-xamam ci lépp loo xam ne rek dañuy sonnele ci xadara bi kenn du ko ci jiitu ñu ngi koy tatagal ci barab bi nga xam ne barabam la ndax ku nekk xam ne diggante Baye Modou Thiam ak Seydi Aliou Cissé ñu ñaar ñoo xam ne ñoom la bàyyi dénkoon lépp lu aju ci mbiri xam-xam fii ci xadra bi ku ci nekk mu jox la benn xaaj waaye terewul ku ci nekk xaaj bañ jox sa morom yaa ngi ciy bay sa waar euh, yàlla boole woon leen ñu nekk ci liggéey boobu ñoom ñaar ba ba ñuy wujjee seen ba ba ñuy fekk ci Mawlana Cheikhul Islam Alhaaj Ibrahim Niass bàyyi mas naa taxaw ne bés dana ñëw du ngeen la fi gis du ngeen fi gis Seydou di Cissé du ngeen fi gis Baye Amadou Thiam te noonu lañ topplante ci seen uy seen borom kon ñu ngi sant yàlla ci bés bu màgg bi nga xam ne ñu bari teew nañ fi ñëw ci bés bi Cheikh Mouhamadul Aaqib teew na fi naka noonu tamit Oustaz Bahar Diagne moo ngi tey ñëwoon na fi Oustaz Kéba Thioub Cheikh Ibrahim ibn Cheikh Ousmane ibn Fati moom it euh, teew na fi mi ngi nii toog Cheikh Tidiane ibn Cheikh Mouhamad Zeynabu moom it euh, mi ngi ak euh, kilifa yi nga xam ne ñoo ànd ak Cheikh Ibrahim Cheikh Tidiane Aliou Cissé ci bés bu mag bi bés yi mu xam ne bàyyi naa dal na ay médailles yu bëree bëree tuddee na ko cheikhul islam tuddee na ko suyuutu asrihi na ko mufti te yëpp lu may bind loolu kay jëm ci ci mbir kon xam naa rek bañ a guddal nga xam ne moo di kër yoo ci bés bi nga xam ne ñu ngi ko jagleel cheikh alxaaj Mouhamed Zeynabu yàlla nag ci baax moo dajale ñaari bés yi di bés yi bàyyi bu am ak bésu cheikh alxaaj Mouhamed Zeynabu ku nekk xam ne ñoom ñaar niñ meloon ci ron Mawlana Cheikh El Hadj Abdoulaye Niass ñu bokkoon bokkoon lépp nekk ci ron Mawlana Cheikh El Hadj Abdoulaye Niass kon nag buñ bokkee bés boo xam ne ñu leen ciy fàttaliku loolu ci mbaax ak yàlla la kon dañuy jox rek imaam mu jàng xatmu ndax jàng nañ ci li war a toll ci téeméeri kaamil ak juróom-benn fukk ak juróom-benn ñu jox imaam mu jàng xatmu bi incha allah. الله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا محمد عدد الكائنات خاتم الرسالات وعلى آله وصحابته الهداة الثقات وعلى التابعين وتابعين بإحسان جميع التطورات رضي الله عن شيخنا سندنا ابي العباس الشيخ احمد بن محمد التجاني عن خليفته ووارث سره وجهره مولانا ابي اسحاق الشيخ ابراهيم بن عبد الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ماغي يكتي اي نيو yu kawe jëmee ko ci xadra bi ñu ko ci ki nga xam ne mooy xalifa xamal bi muy cheikh Aboubacar Ahmad cheikh cheikhul islam kama samaam cheikh di ko ndokkeel ci bis bii nga xam ne bis bu màgg la di am kontaan te itam ci teew fii bokk ci ñi nga xam ne teew lañ fi ndax ñi koy defal zahiran ak baatinam yépp jar na ko ci gis nañ ñi nga xam ne defar na leen nga xam ne liggéeyam dootu toogati mukk ci àddina baax yi itam xam nañ taxawaayam ci fayda bi ak njëkk fayda bi ak moom laa def dara kooku nag buggul dara moromam yi ci moo tax ñu ne bala ñoo fenn ñu njëkkee fii ziyaara Sëriñ Mbay ndokkeel ko ndokkeel ay rakkam ndokkeel ay jarbaatam ay doom yépp yàgg yàgg ah, gis te lépp yàlla ñu fekk ak ñoom yàlla may wér may tal ba nga xam ne waxtu ñu koy def rek dinañ mën a teew ñu ngi sant yàlla nag baax a baax ci liggéey bu mag bii nga xam ne ci lañ démb nga alquran dugaat tey mel na ni lépp ay na fa xaat la yoo xam ne yonent bi nee na inna lillahi fi ayyamin dahrikum nafahaat laa tata'arradu lahaa bis bi ak bisi démb bi yépp ci dafa xaar yooyu la ñu ngi ñaan mu may ci cër yu law law law law barke alquran yàlla àndal ñu ci suñu lépp àndal bii nga xam ne itam moom lañ jàng ci ay xatamaat man nag ñu mën nañu wax ne laa ilaha illallah lay lay lay tolloot ñu ngi ko sittal sitte loolu tam beneen wóor la boo xam ne yàlla am yàlla am lu daxañ ci biir kon nag ñu yaakaar ne képp ku fi teew am dara luy métti ci sa yaram booy na am bàkkaar yàlla ko yàlla ko yàlla far képp ku fi teew am bor yàlla ko am jafe ñu wattu ñun ñëpp lislaam wattu xam ne ci njaboot bi dafay sax ilaa yawmi diin dootu fi jóg ci barke alxuraan ñu jàng xatma bi nekk teewlu ay bëgg-bëggam ak ay naam bismillahi rahmaani rahim allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu amiin yaa rabbi bismillahi rahmaani rahim allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad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 صدق الله العظيم وبلغ مولانا رسوله المصطفى الصادق الامين وهو اصدق القائلين والمصدقين ونحن على ذلك من الشاهدين وفيه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم رضي الله عن ساداتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وابي عبيده بن الجراح وحمزه والعباس وابن احمد والعقيل والحسن والحسين وفاطمه وخديجه وعائشه والسائر امهات المؤمنين ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم نور به قلوبنا وقبورنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا ووفقنا لما فيه رضاك عنا اللهم اجعل القرآن العظيم أمامنا وقائدنا إلى الجنة ولا تجعل خلفنا سائقنا لله اللهم اجعل القران العظيم شافعا مشفعا فينا ولا تجعله ماحلا مصدقا فينا اللهم اجعله لنا ولا تجعله علينا اللهم ارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا ولا تجعل لنا ذنبا الا غفرته ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا عدوا إلا كفيت ولا غائبا إلا رددت ولا عصيا إلا عصمت ولا فاسدا إلا أصلحت ولا ميتا إلا رحمت ولا عيبا إلا سترت ولا عسيرا إلا يسرت ولا حادثا من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها في يسر منك وعافية إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته وحلاوته آناء الليل وأطراف النهار ابتغاء مرضاتك اللهم ما قضيت به علينا من قضاء في العاقبة ورشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة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 واكتب لنا فيك نفيك الذي لا يراه واجعلنا في جوارك الذي لا يغفر ولا يضام اللهم ندعو بك في نحور العداء ونعوذ بك من شرورهم اللهم فينا مما شئت اللهم انك اعلم باعدائنا كذبك وليا وكذبك نصيرا اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وانثانا وحاضرنا وغائبنا وحرنا وعبدنا وطائعنا وعصينا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 salaamaaleykum mbokk yi kontaan nañ xatamaat yi ñu jàng fii muy cent soixante te dégg ngeen sëriñ bi sëriñ bi joxe yàlla nañ ñëpp yëbbaale sëriñ boobu rek ci fajuk aajo ci saafara yaram ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi amoon fa mu tëdd yëngatu na ndax kontaan ndax bis bii njabootam yi doon jàng ci moom jagleen ko bi jàng lim bii yoon ba di ko fa fekk sëriñ bu mag bii di imaamul arimati di Cheikh Tidiane رغم ضيق الظروف وقته bàyyi na lépp jiital ñu jàngal ñu xam bi ñu ngi sant ci loolu euh, di ko ñaanal yàlla kilifa bu mag la bi am yàlla nañ ko xam yàlla ñu ko yàlla jéegal ni muy jégee toobo mu ñuy bay ba wër toobo toobo dañ koy déeg kii yàlla na ko yàlla déeg ndax mooy màgg te bu màggee mooy meññ te bu meññee moom la ñuy jëriñoo yàlla nañ ko yàgg jëriñoo ci teewaayam day gët nañ kontaan nañ suñu xelit dal na ndax delloo si lañ mënuñ nag lu may ñaan ko soxna yàlla na la yàlla xaar. yal na la yàlla xaar yal na la yàlla xaar yal na la làq fu yàq du baax yàqkat du baax ci wetu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sàkk nga ci bii yal na fi yàq loolu rek lañ la mën a ñaanal te da ko amit nag naamam bi doy sëkk ndax yàgg fii te moo mam fay sonal nit yal na am am bi doy sëkk sëkk sooy doyit nag ndax yow loo am jox ko nit ñi te xamewoo ci kenn nga war a jox ak nga war a jox ku ñu war laa jox rek xanaa ku àgg si waaye ku àgg si ba yëg ne ba nga yëg dem borom aajo la kooku moom aajo faj na mënoo gën a baax yàlla nag yàlla dina la jox ko nga doyul loolu rek laa la a wax. mooy cooy mbir mooy cooy mbir yi